culture waa culture la bu fekkee danañ jàpp ne dañu nekk ci beneen vie wala beneen monde bu parallèle ak bu bu sénégalais yi di dund laa dafay indi problème léegi nag euh, dafa am ñoo xamante ne ni dafay dem ba ci euh, bëkki démb on a vu une vidéo qui est en train de faire le tour de la toile moi j'en ris mais Malal n'est pas d'avis avec euh, moi mooy taalibe bi doon rab saay saay waaw léegi association Aar Daara mm-hmm. récupérer bi nee nañu saay-saay yi ñoo bëggoon a jël xale dongo daara bi def ko rabkat stigmatisation pour ñoom kuy rab saay-saay nga loolu si xalaatam la ko jàpp mu ne saay-saay yi ñoo bëggoon a jël xale dongo daara bi def ko rabkat hmm. léegi jël nañ ko dugal nañ ko ci internat hmm. mala oui sama moi ça m'a fait rire en fait euh, je disais il ne faut pas en rire parce que nous sommes un secteur sérieux. Et il faut refuser le stigma, il faut refuser le stéréotype, il faut refuser le cliché. Et il faut se battre contre ça, parce qu'effectivement, il ne faut pas encourager ce type de perception sociale. C'est un regard dégradant. C'est dég très dégradant mmh. comme regard. Pour yow, c'est insultant. C'est insultant à la limite. Man, hip-hop moo ma jàngal lu ëpp lu ma xam ci sama àdduna hip hop moo ma ubbil samay buntu hip hop moo ma jegeloo sama askan hip hop moo def ci man xolu yërmande tey bu ñu demee ba ne Sénégal Talent Campus muy daara la daara la école hmm. yu ay ndaw di ñëw di jàng bu ñu paree am diplôme BTS te pourtant bu njëkk nit ñi dinañ la acteur culturel la wala manager la mais amul benn diplôme bu koy hmm. mandarga. Hmm. ñun on projet bii dafa nekk ci titre professionnel yi pour nit bu ne man régisseur la ñu ne école bii la jóge hmm. lijaasa baa ngi nii te lijaasa yooyu dafay tolloog yeneen i lijaasa yu jóge ci yeneen daara yi. waaw stéréotype bi mooy alxuraan moo gën leneen lu dul moom. nit dina rappeurs yi ay saay-saay lañu. oui xam nga loolu. xam nga buñ ne rappeurs yi ay saay-saay lañ c'est comme si je prenais sûrement la responsabilité de dire jàngalekatu daara yi ay saay-saay lañ su boobaa damay tooñ mhm. mais jeune ne le dirai jamais lu ma ko mus a xam nga lu tax te pourtant ñaata nit ñooy jàngale ay daara ñu yoon jàpp leen ñu tuumal leen ci sàkku ay xale ñaata bari na bu fekkee dañuy def comparaison boobu ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci hip hop ce n'est même pas comparable parce que man musuma dégg ñu ne diw ci hip hop bi la nekk jàpp nañ ko ci histoire yenn merci hmm. c'est pas pour dire que oui je veux wax bi munoon na rafet hmm. munoon na rafet parce que legle léeg rappeur bi bind loo xamante ne yeena doomu aadama nit ki sukkandiku na ci mais xoola boo dégloo par exemple le texte de Iba et de Makhtar le Kagoulard sans commentaire sans commentaire wala sans c'est l'un des textes les plus forts hmm. lu loolu mën naa ne alxuraan la te ñaare euh, sëriñ daara yi xam naa ki doon wax dafa wax ci coup colère mais ñaare sëriñ daara yi ma xam yépp bu dee musique rek dañuy wormaal surtout ñi nekk ci hip hop. parce non, que dañu que. non ki doon dafa que dafa mer parce que du musique bi la xool mais message bi rappeurs yi di véhiculer. oui léeg nga dégg ay ustaas yu siiw yu nekk si mhm. ay rajo wala ay télé di jël ay exemple ay rappeurs te léeg-léeg. combat wu diine rappeurs yi ngay seen. ñu nekk au devant de la scène. mais oui c'est ça, c'est merci par exemple c'est très simple sur affaire au prophète Charlie. Karim Xurum Xaq mi demoon taxaw ñu jàpp c'est un rappeur. Hmm. jàppuñu benn sëriñu daara. jàppuñu benn seriñu daara Karim lañ <laughs> jàpp ko et Karim il de la culture hip hop moo hmm. njëkk a génn moo njëkk a génn imaam <laughs> moo njëkk a génn ñeneen ñi. qu'on le veuille ou non. puis ah. lui il du hip hop. non mais attends attends dafa am benn débat boo xam ne on ne veut pas vraiment dugg si loolu. débat wu daara ak rap bu gën. oui amul lu muy dendalanteeg daara daara moo gën lu dul rab daara alxuraan la alxuraan moo gën lu dul rab. mais mais ça c'est pas un débat. Pape Sidi Pape foofu sax foofu sax dañuy dañuy dañuy. c'est-à-dire yaa ngi ci ñu ngi yaa ngi yaa ngi dem yóbbaat affaire je pense que. non mais c'est-à-dire j'ai vu un commentaire. non yaa ngi yóbbu déet déet fexe leen ba daara ah, gënul rab. non c'est daara daara c'est un mot arabe qui signifie école. Mm. c'est très simple. Mm-hmm. c'est l'école. à l'école on y apprend du tout. à l'école on y apprend du tout. non je pense que allemand bi li mu bëgg wax. donc nous trois qui sommes réunis ici. Mhm. li ñu boole suñu dénominateur commun mooy nous sommes des musulmans. bien ci li ma xam. donc mënuñu nekk di discuter ci yenn yoo xamante ne. j'ai vu un mm. xam nga sénégalais yi dama leen xam. dañuy jël débat li leen ci intéressé ñu dog ko. def ko polémique nee na malal nee na wala daara yi lañ doon tëkkaleeg rab bi c'est que je veux pas ces polémiques là moo tax ma teel a lever équivoque boobu man commentaire bu ma ci bëgg a def mhm. je parler pour moi mhm. par exemple moi mon propre père il a été dans un daara mhm. c'est lui qui me l'a expliqué jàng na alxuraan nekk na daara yalwaan na sax à son époque mais pourtant il euh, m'a mis au monde may ànd ak ay rappeurs di pendant vingt ans mais man munu ma wax ne ba nekkuma fi pour gënalante ay nit quoi. Mhm. je pense que commentaire bi c'était un peu déplacé boo ko liiree parce que français la dafa ne saay saay yi ko bëggoon def rapkat xam nga. saay-saay yu ñun la te ñun duñ duñu ay saay-saay. loolu hmm. la je pense que mais c'est c'est on a beaucoup de respect à j'ai posté sur les réseaux j'ai dit rap rapkat yi ay saay-saay c'était pour les taquiner mais bu demee ba sérieux c'était pour parler des stéréotypes. de la stigmatisation voilà. même sax bu dee ay sëriñu daara def nañu vie. ça doit pas nous obliger à généraliser. oui par exemple ah, on ne peut pas dire on ne peut pas dire. diw ci rappeurs yi rey na nit. que rappeurs yëpp ay reykatu nit lañu wala diw ci sëriñu daara yi ah, def na nangam. sëriñu daara yëpp ñoo yem noonu la ñu pour man la dem almaami le débat xam nga fan la war a nekk. c'est-à-dire que les gens qui ont choisi d'amener leurs enfants ci daara yi. ak ñi jël soit def yóbbu seen doom ci école yi c'est des filles et des fils du Sénégal état bi li mu war a def moo dana war a tollale parce que lu am solo connaissance la te loolu choix wu parents yi la. Mhm. donc état bi dafa jël doole bi muy def ci éducation nationale bi ci école yi def ko ci daara yi ñu ko. Mhm. mu gën a am hygiène gën a am qualité de vie ak qualité d' enseignement. loolu mais man waa aar daara dama leen a hmm. parce que booy bi dafa génn freestyle ñu récupérer ko yóbbu ko internat. ah waaw mais man maa ngi si mbedd bi yor micro di def émission bu tudd aaru mbedd <laughs> damay dajeeg ay mille taalibe. taalibe bu ma romb naa ne bu rabee <laughs> gars yi ko kon. kon kon daal yaa ngi ci mission yaa ngi ci mission. d'ici un an je me donne l'opportunité de récupérer tous de les <laughs> autant d'émissions autant de ndongo daara. non mais benn émission aaru mbedd bu nekk naa si jël dix wala quinze booy talibé. imagine tu en leen. cinquante deux à l'année. léegi voilà léegi dix quinze bu ma defee loolu bu loo bu fekkee ku booy taalibe bu rab gars yi récupéré ko non je vais je vais faire ça <laughs> je vais, pour terminer alors dafa am loo xam ne da ngeen ko teg sur place muy Sénégal Talent Campus merci déjà si idée bi merci déjà si taxawal bi jëmmal bi mais bëgg naa comprendre pour ñi nga xam ne dañuy door a dégg pour la première fois hmm. cette chose là Sénégal Talent Campus Amadou lan la c'est quoi. waaw Sénégal Talent Campus Pape Sidi dafa nekk benn initiative boo xamante ne euh, J Hip Hop ak Afrique Urban ak MCU ñoo booloo teg ko donc donc c'est un centre de formation professionnelle et technique au métier des arts et de la culture <coughs> je parle pas de hip hop des arts et de la culture avec A majuscule et C majuscule donc c'est ñu tax a jóg mooy c'est de certifiante et diplômante donc boo xoolee depuis 2018 man ak Almaami ñu ngi mais 2019 ko bëggoon lancé yàlla def ay élections présidentielles am fii mujjul antu bi comme ni ma la ko ak pandémie bi on pris le temps nécessaire 6 mois tëju woo suñuy grand frère yoo xam ne ñu ngi ci culture bi accompagner ñu parce que affaire aussi c' pas facile bind ay curricula moo gën ci dëkk bi mooy bind ay programme ñu war a jàngale te boo xoolee am solo ci affaire bi quand on parle de BTS c' est bac donc c' pas une formation boo xam ne affaire de mbedd la da ngay ñëw taxale ko ni rek mu dem non mm-hmm. donc on parle de brevet de technicien supérieur en son en lumière en administration culturelle et en régie de production donc 4 BTS nga lancé ko en 6 mois c' est pas une mince affaire donc donc da def formation ci diggante son son lumière lumière régi de production régie de production administration culturelle ak administration culturelle te ñooñu du nekk ay formation wu une semaine. ñu jox la benn attestation deux ans. at da ngeen bëgg euh, gars yi jàng ko. bu baax mu nekk lu ñuy jàng am compétence am génn am diplôme d'état parce que ba tey c'est un diplôme d'état reconnu par l'état du Sénégal. maanaam Sénégal Campus du compétition kon loolu école la. vrai centre de formation la. moo tax ma ne la léegi par exemple suñu école boobu ku amul bag sax mënu fa dugg. d'accord. pourquoi léegi pourquoi. waaw parce que parce que y avait des formations. waaw xam nga lu tax loolu. Alma mi muy toog il est directeur de festival Guédiawaye Baye Rap depuis dix ans man mii di wax je gère Festa déjà depuis quinze ans boo boolee suñu année d' expérience ça fait vingt cinq ans d' expérience festival yow mii représenté suñu concert ban concert ngay dem mu commencé heure. amul ban concert ngay dem mu jeex heure. amul ban concert ngay dem du am problème mu lumière bi du demee nu mu ne micro yi fii dalay maa yenn saa et cetera yi duñ am ay contrat duñ ko signé bu baax duñ ko bind bu baax déclaration ñu demee yoon ñi ay manager lañ xam nga nu mu demee ay copains lañ et cetera donc dugal CD bi. Eh, eh, waaw mu te nag Campus rek du côté musique bi ah dama la jox beneen exemple xam nga bi ñuy inauguré Jinaan xam nga jënd nañ sono bu bees mais il faut ñu am technicien bu koy dawal. Mhm. imam bi suy wax affaire bi day leer ci bopp ñëpp mhm. c'est très important émission bi ñuy def nii on parle de son mhm. su techniciens yi nekkul fii son bi du am mhm. église dimanche yi suñu mbokk chrétiens yi bu ñuy def aussi pareil c'est important mariage c'est important ngénte yi c'est important conférence yi màggal Touba tout ça on a besoin de son loolu on a besoin de régisseur de régisseur dans un màggal màggal pour sëriñ euh, bi kañ la war a génn kañ la war a dugg kañ la war a jël parole gan yi kañ la ñu war a installé ku nekk fi ngay toog à gauche à droite loolu yëpp régie la. c'est important. Mm -hmm. mais là je juge que vous n'avez pas toujours répondu à ma question la question elle est claire. Mm -hmm. il y avait des formations. il y avait des gens qui faisaient ce que vous étiez en train de dire. mais pourquoi ngeen def ko mu am école boo xam ne dañ lay jox diplôme. ah ok pourquoi. oui mais mais parce que Pape Sidi booy am booy liggéey ci dara. da ngay soxla lu ko certifié. luy firndeel ne lii. waaw mën nga ko. parce que tey su ma ne. Mhm. je un docteur en communication. il faut que je montre le diplôme. Mmh. les attestations c'est des attestations. amul aucune valeur juridique. amul valeur juridique mais tey boo jàngee ci école bi da ngay am diplôme ñu prévoir sax. pour ñi nga xamante ne amuñu ay niveau BTS amuñu ay niveau bac mm-hmm. ñu prévoir effectivement des formation de six mois pour ñoom pour mooy li ñuy wax valorisation des acquis des acquis expérience mm-hmm. nit ñi pour ñu mën a am ay këyit mm-hmm. am ay certificat de spécialisation maanaam gis naa ni booy bii nii caméraman la Asmalik <clears throat> jàng na ba tey nekk na fii 2S di filmer et cetera et cetera mais ana diplôme am. asmaa da nga sa diplôme mu kër ga. <laughs> ñoom fii lañ jàngee si école yi jàngale caméra. ah xam xam nga mooy li ngay def mais effectivement tey mais diplôme boobu dafay am solo pour fii ak bitim réew parce que ëllëg dañu bëgg tey boo gisee secteur culture bi ak art bi demee nii c'est parce que depuis 1960 ba léegi. gars yi nii rek lañ leen di xoolee ñemewuñu laal yeneen secteurs yi parce que effectivement yeneen secteurs yi c'est beaucoup plus valorisant on veu que la culture d'un point de vue administratif et les arts soient beaucoup plus valorisés mmh. comme ça qu'il y ait beaucoup plus yow mi nga xamante ne tu es un administrateur culturel hmm. nga génn ci école yooyu avec ton BTS un brevet technicien un brevet technique euh, de technicien supérieur en administration culturelle boo génnee foofu nit ñi mën la xoole comme ki nga xamante ne moom moo génne ci yenn école yi ba nekk biir douane wala ba nekk wala wala wala nekk beneen ba feneen ci ci ci ci jàng ba nekk spécialiste ci benn mbir am ay diplôme parce que koy firndeel parce que foofu lañ toll d'accord ama amul daf la wax lu am solo mhm. ne la da ngay ñëw di concert concert bi du démarrer heure mhm. da ngay ñëw fekk artiste bu taxaw. ngay dox ci scène bi fil bi. waay fil waay amul sécurité amul dara. moo waral suñu tey ñun dañ dem ba suñu centre yi dañu toppatoo lool nga xamante ne moom mooy agrément. Mm-hmm. agrément boo xamante ne daf ñuy jox sañ-sañu jàngal ay nit ci métier yooyu pour wax la ni. loolu amagul Sénégal bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi. ku ko bëgg a waaw léegi yaa di nga dem nag lu mel ni université Gaston Berger. Mhm. am nañu ay dinañuy jàngale yu demee noonu mais kenn curi mais les curricula n'existent pas. man lan laa la laaj. ci sa biir euh, wax. Mhm. yéen ñaar. du ngeen ay technicien de son. waaw déedéet du ngeen ay technicien de lumière. waaw déedéet léegi yéen naka ngeen mën a bindee. Mhm. luy jàngale nit. ba mu mën a nekk technicien bu am. diplôme ñoo xam nga comme ni ma la wax sànq nee naa la si pandémie bi 6 mois yi. yéen bu ñu leen waxee kaabale leen son du ngeen di. kaabale waaw moo tax du suñu liggéey ñun defuñu loolu. Hmm. ñun ay comme yow sa présentation donc ñu présente comme des promoteurs des entrepreneurs culturels. bien hmm. sûr on l'assume. loolu la ñun suñu xel la ñu yor ma ah, xalaat. donc maag allemand bi ñu toogee xalaat dañoo woowee suñuy mag ñuy jiitu ci culture bi en l'occurrence professeur Ibrahima Wane ah enseignant chercheur UCAD. Mhm. moom mooy directeur des études Sénégal Talent ku mel ni Abdou Diouf institut français. xam am depuis plus de vingt ans yaa ngi koy gis fii. ci mhm. son ci lumière ci euh, régisseur général déjà. Mhm. moom moo ñu accompagne ci la partie technique. boo xoolee Ousmane Faye manager Omar Pène il est dedans. Omar il est dedans Mamadou Dramé prof université encore il est dedans. Hmm. Euh, donc c'est pas vous non ñun ñun ñooy les porteurs du projet. donc li ñu def loolu aussi dama lay wax ne mooy faiblesse hip hop bi souvent hip hop bi dañu nekk suñu monde ba nga xamante beneen expertise bu amee feneen. dañu am complexe dem jëli dem mhm. ñun loolu la njëkk kase ne xam nga lan man filmer xaw ma ci dara bu ma war a bind curriculum ci filmer damay woo caméraman kuy liggéey ci vidéo donc c'est comme ça qu'on a fait en fait mm. donc comme ni ma la on a rassemblé vingt professionnels ak d'université pendant six mois vingt laa wax de vingt ñii administration culturelle ñii lumière boo xoolee ci lumière on est allé RTS jël fa benn grand bu baax Ndiogou Diagne maa ngi ko passage mu ñëw ñu accompagner ñu Abdou Diouf jàppale ak beneen grand bu ne qu'il est parti à la retraite mm-hmm. comprendre noonu la ñu construire curricula yi ñoon Racine bàyyi bàyyiwuñu ñu def lu ñu bëgg def de daa intervenir du début à la fin ci processus bi day taxaw ne ah gars yi li ngeen bëgg a def Sénégal créé na lu ñu woowee APC approche par compétence mooy wane ne ki ñuy jàngal il est au cœur du dispositif. da ngeen bëgg jàngal waa ji ci son ah ok kay baa ngi nii. boo la fii lay tàmbalee fii lay jeexe fii lay jàngee xam nga ne ci deux ans dañ lay wax sax deux ans yi sax du demewul noonu c' est mille heures par an ça veut dire six mois et demi par an ngay jàng. après année prochaine nga defaat loolu diggante bi nga def stage ak dem entreprise parce que ñun du école entreprise. six mois et demi mooy neuf mois. non six mois et demi demi un demi de ah, mois. mois voilà d'accord environ sept mois. ñaari juróom-ñaari weer mille heures par an fois deux. Mm. donc pour te dire que affaire bi dem ñun xam nga au départ on pensait juste que c'était un truc simple. la preuve bi ñu demee seeti directeur de la formation professionnelle monsieur Abdoul Fall maa ngi koy nuyu au passage dañu doon wax ah sama gars est ce que pare ngeen affaire bi de ñu ne ko non ñun hippo bi lañ jógee ragaluñu dara. grand bi xamu ñu bal ñu jéngu affaire def ko on est même allé waxuma la curricula de romb nañ la dañoo def sax formation des formateurs cest à que yow mii mënoo xëy rek ñoo jàngale suñu école foog nga formation des formateurs c'est-à-dire que nekkul formation mbedd falaa falaa ñëw rek taxale loolu moo tax affaire bi xaw a ba pare cher parce que allemand bi du ko wax mais imagine six mois yooyu xam nga curriculum yi ça nous a coûté cinquante millions rond cash ci corona bi cinquante millions francs la jar parce que nit bu nekk day ñëw xëy si minimum tu donnes chacun cinquante mille par jour pendant six mois vingt vingt personnes par jour c'est lourd donc dafa mujj dix donc du moo tax boo xoolee léegi depu le 10 décembre dañu yàlla sutural invité suñu ñaari ministre de tutelle muy culture ak formation professionnelle Dame Diop ak Ablaye Diop ak madame le maire de Dakar. Mhm. musée des civilisations ñu def fa. Oh, cérémonie a été vraiment exactement gis ñu jógee ci cérémonie bi la ñu appel à candidature yi sax candidature ñu ngi ñëw en masse incha allah euh, allah mais boo xoolee li sax ñu bëggoon ko yóbbu euh, bac bi c' juste pour donner de la dignité parce que comme li nga fii sa doom bu juddoo naan boo xamee ne son bi mën na dem fu nekk mën na liggéey partout au monde mën na liggéey sax aéroport mais xam nga aéroport dañuy boo tardé dañuy passager Pape Sidi mais loolu son koy def. Mm-hmm. ah donc koy ku a câble ku mën a. bu ngeen xamee lan mooy liggéey bi après du jafe ngeen xam fan ngeen di jaar ngir tekki ci ndax fépp fu nit di soxlaa micro ak son bu weesoo ngénte yeeg. yooyu xam ne moom c'est terre à nga xam ne nit yi dañ koy soxla muy lu professionnel te àdduna bi foofu lañ jëm il faut tendre vers le professionnalisme mm-hmm. te malal loolu defe naa lu am na sol parce que nous on a manqué de sa à un moment donné on s'est dit qui doit faire quoi da ngay gis benn gayneen bu aay si lumière rek huit booy dar ko mu ber kii suba kii génne ay lumière am doo xam quelle lumière parle de quoi nangam nang mhm. donc yooyu yëpp bu ngeen defee ba jàngale bi am solo mhm. mais qui est habilité à venir dans cette école il faut avoir le bac quelles sont les conditions pour oh. école boobu waaw xam nga dafa am ñaar dama koy xaaj en ñaar en Hmm. dafa am régie de production ak administration culturelle n'importe quel bac S L wala BT ou diplôme admis en équivalence mën na ko def mais son ak lumière il faut nga am bac S1 S2 wala S3 wala T1 wala T2 wala BT xam nga lu tax. ñaare ñooñu dañuy faral di dem si yeneen mbir yu ëpp xaalis ah. est-ce que loolu dina am rentabilité si ñoom xam Sénégal. Mhm. déjà boo yu am bac bëri na te xamuñu sax fu ñu jëm. malheureusement loolu moo fi nekk mais. Euh, secteur bi aussi y a des gens qui ont le bac pour ñun euh, c'est un grand débat bu amoon suñu diggante ah est-ce que dañuy def loolu mais aussi comme li ma la wax on vient de démarrer on veut faire un truc sérieux high level nañ ko tóoj ba pare parce que loolu tóojul du kawe mhm. on s'est dit que lu tax bac S1 bi wala T1 bi mooy dafa am ñaari discipline ñu tudd mathématiques et physique appliquées au son mathématiques et physique appliquées à la lumière te dafa am électricité bu am doole ci affaire bi mais boo amul notion yooyu mënoo ko def hmm. loolu moo tax mais loolu aussi c'est juste le BTS mais à côté du BTS mais il faut qu'une certaine expérience un certain niveau parce que loolu par exemple on va faire huit certificats de spécialité xam nga quatre BTS la mais huit management artistique euh, sonorisation création lumière euh, construction scénique moo ñu installé scène yi mm-hmm. am na régie vidéo am na prévention des risques et sécurité des spectacles parce que loolu aussi bëriwu fi mm-hmm. nit ñi fii xamuñu pompier day ñëw taxaw xamuñu sax luy njëriñam chaque jour ay événement ay problème am nit xam ko. Hmm. xam safety loolu ci wàllu sécurité bi la. donc c'est très important c'est très important. mais li nga wax dafa tellement important que le son quand on le connaît un peu ñun moi qui a eu la chance de connaître la radio. xam hmm. naka la ñuy mixer son. dañ lay bindal. par seconde battement par minute bi. tout est calculé nombre de décibels bi sa nopp war a soxla bu 1000 personnes taxawee ñaata nga leen war a envoyé ci son bu 2000 personnes taxawee tout est mathématique. le son c'est calculé parce que xam nga lu tax théorie bi. nga war a mhm. comprendre balaa ngay def pratique bi. Mm. xam soo wëree ne bouton bi soo ko bouché euh, euh, yóbbee à gauche. effet bii lay def mhm. da xam nga xam nga métier bi mais Sénégal da nga gis gars dañuy taxale dañuy saale mhm. da nga leen nuyu gars bi a jóge parce que 2020 ko chinois def ko def la parce que loolu dafa ma jaaxal Douta Seck par exemple plein la mais des nga gis ñoo xam ne dañu am son bu fort day ñëw bu ñu tëggee yow mi nekk ci scène bi da ngay déggaat sa bopp ba daf lay déranger mhm. mais am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee installé ko ñaari ay tubaab la doon ah. yow doo dégg dara sa bopp oui par exemple dañuy dégg normal par exemple balance booy balance en Europe nga nekk ci seen bi di balance le régisseur son il te dit tu as besoin de combien de kilos fii Sénégal doo ko mës dégg fii da ngay naan one two ma check. Ah, wàññil ma yokkal ma wàññil <laughs> ma defal ma ci trable et cetera et cetera ça nous permet effectivement d'avoir des gens qualifiés. Eh. parce que quand même il faut le dire. il y a un énorme potentiel fii si dëkk bi des jeunes qui sont dans le secteur des arts parce que un concert de Dip peut faire travailler combien de jeunes Beaucoup. un concert de Ngaaka Blindé peut faire travailler combien de jeunes l'autre jour vous avez eu ici Wally Seck il a derrière lui combien de personnes mais il ne faut pas que nit ñooñu ñuy àndal nekk ay taqalekat hmm. fokk ñu am xam-xam fokk ñu am xam-xam c'est-à-dire boo gisee musique sénégalaise toll fi mu toll te mu nekk dëkku musique dëkk nit ñi bëgg affaire bi et cetera. taf yëngal gi daf ci bëri yëngal daf ci bëri il faut professionnaliser le secteur te ñun effectivement loolu mooy suñu responsabilité. ab Amadou damay damay seede dara dafa taxaw benn bës ne ma malal man organiser naa 15 ans de festival mais man daal dama bëgg a wàññi tuuti folklore bi nekk ci lu gën a structurant moo tax ma xalaat ni war nañu teg Sénégal Talent Campus donc. ma xam ne loolu mu wax dëgg la parce que y a derrière nous beaucoup de jeunes qui sont avec nous qui sont là nekk ci biir affaire bi ñu naan la non boo bëggee son bu mool demal woowi Issa fekk Issa day dagg fii fiil dagg fee fiil coller suude on ne peut pas continuer comme ça il faut mettre en place un dispositif boo xamante ne non seulement ci wàllu sax koom-koom parce que tey Abdou Diouf li muy gagné ci xaalis bari na trop. Mm. te pourtant son rek mooy liggéeyam. am na koo xamante ne lumière rek mooy liggéeyam mu ngi laal loo xamante ne xëy na avocat nit nit nekk na juge d'instruction. ci réew mi ko laal du ko laal. ma jox la benn exemple soo jëlee norme bi am ci àdduna bi kuy jàngale son wala lumière par jour pour yow ñaata nga koy fay à peu près. cinquante mille. non minimum trois cent euros deux cent mille francs CFA. deux cent mille lay fay par jour. par jour. pour jàngale son. jàngale wala lumière. ki nga xamante ne mooy jàngale son wala lumière. il il perçoit Djibi Aïdara par exemple. waaw deux cent mille par exemple Djibi Aïdara. un événement il vient te faire la lumière et euh, obligé cinq euh, par exemple. ñun on l'a appelé avant muy Espagne. pour sax mu ñëw contribuer ci formation yi malheureusement. il était parti en Espagne ci biir corona bi. temps ah, ñun déjà buñ la waxee li ñu mobiliser ci ay ressources ëpp na cinquante millions juste pour la rédaction des curricula maanaam bind li ñuy jàng bind bi rek la ñuy jàng équipement bi ñëwagul réhabilitation bâtiment